kiko ku fi ñëw ñëw la Sénégal sama réew. Moi, euh, maire de la commune de rufisque dans le programme Suxali nous lançons un appel à l'ensemble des populations du Sénégal et de Rufisque de respecter scrupuleusement les instructions du ministère de la Santé, à savoir se laver les mains régulièrement, le port de masque obligatoire euh, pour tout citoyen, euh, le réduire les déplacements, éviter aussi le rassemblement dans certains endroits. Et je pense que euh, si nous respectons ces instructions, cette pandémie qui est le Covid-19 va disparaître du Sénégal. Donc nous lançons cet appel à l'ensemble des populations du Sénégal, en particulier les populations de la commune de Rufisque-Est. Euh, dans le programme Suxali Jigéen euh, mooy lancé appel ci askanu Sénégal di leen wax ne li nga xam ne moom ministère tëral ci euh, ay tëralin ci ni ñu war a wootoo tawat ñu respecté li ci jëkk mooy fu ñuy déplacé wu nañu sol masque bi ci topp mooy nañu sax dàkk di raxas suñuy loxo beneen bi mooy ku ciy tisee li nga jël sa na nga tisee sa kuut ku ciy euh, déplacé wu aussi maanaam doon déplacement bu am njëriñ te ñu éviter déplacement yu bari ñu aussi daw li nga xam ne mooy dajaloo bi yaakaar naa ne loolu bu fekkee ne askan wi saxoo nag li nga xam ne mooy mbas mi dina wàññeeku Sénégal wala dina génn Sénégal ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan liggéey boobu ñun ñëpp ñu sóobu ci wasalaam